taalif yu nu mel dafa am solo parce que day jàngale ci anam bo xamne dafa am faaliya ba nga xamne lim mën def yeneen côté mënuñ ko def parce que atifa lay wax ak sentiment lay wax ak ak shoor lay wax ak surtout buñ ko orienter def ko muy ay théâtre yoy lim man ci changement bari no trop. bu xolé onwan bi xawna ma jaxal touti mais bi ma toggee ñëwee ba toog saal bi laa ci laa xalaat ne di def ma ne de li ma gën a jox ci wàllu hijira la def mais far nag loolu la li ñuy xaw a tanaawul ah ñu am nañ ci nusxa comme incha allah bu ñu demee gën ci xool bu ñu ko liiree ba ci la gën a mën a def benn jugement boo xam ne peut-être dina nekk jugement bu bu bu bu bu adéquat par rapport ak moom li mu bind mais en tout cas ñi ko jot a li ñu jot waxagum daal dal na xel bu baax a baax parce que lépp loo xam ne dafay euh, mu alaja xadiya boo xam ne dafa am alaaka ak waaqin bi ak nit ñi dañuy dund surtout Sénégal ñëpp xam nañ ko surtout yéen ñi nga xam jaar ngeen si biti xam nga nit ñi ni ñu mel ci réew mi daf na impressionné bu baax a baax a baax ba tax sa liir bi wax dëgg dama ci gaaw presque ci benn une heure de temps laa ko lire ndax neex gum neex ak euh, intéressant aussi gumu intéressant te loolu mi ngi commencé commencé ci ci ci thème livre bi les évadés du les évadés du paradis nga xamee ne boo euh, boo ko gisee da ngay yàkkamti xam wax dëgg yàlla lu ne ci biir parce que tam euh, bu fekkee àjjana comme ni ko ñëpp xamee wax dëgg ñu yaakaar ne nit dafay daw jëm ca mais ñuy wax ne nit dafay daw pour jóge fa loolu yaakaar naa képp ko ko gis war nga yàkkamti pour xam kii euh, kii wax lan la bëgg a wax exactement ci biir livre bi. dañu soxla comme genre yi nga xamante ni dañuy bind si côté roman affaire yooyu noonu rawatina roman bi tam boo xool dafa dafa dafa laal suñu culture daal africain plus sénégalais aussi parce que boo xoolee unwaan bi tamit nga xool safaratul al oula nga xam ni dafa sénégalais daal dafa laal suñu saxaafa te loolu tamit dafiy baax parce que dañoo jàng langue arabe dañuy jël lépp loo xamante ni moo jëm ci naar yi ñu andi ko mais tamit dañuy war a jël ñu jël ko تكيف كمونيك تكيف بمنيك دي متكيف مع واقعنا الذي نعيش فيه دي تور بي اي سوليسيون يو خامتيني بونتي سوكانديكو داني ген تي يويو في سوسيال اي اي بروبليم يو خامتيني يو ملني الهربات من الجنه دونك نك لول بوكو نتي ليغا خامتيني مو غنا بوسي رواي بي نيو دونك تيميت اوسي متناول ين يو خامتيني دا فنيك تي دوندو سينيغال لول ليب بوكو نتي ليغا خامتيني مو مو بوسي هاري الهربات من الجنه دال لي نيوات دي واخ فنين فو خامتيني وتنا اك في خامتيني فلا جيرم ولكن دون واخ كيكو بيندو xam nañ ko Babacar Ndiaye ku ko xamul tamit dégg nga ko parce que ku yëngu ci xam-xam la te yàlla dénk nako khalima go xamanteni khalima gu bax la ma sha allah yàlla dénk nako am xel ñun dañuy togo mom di waxtaan ak mom lu bari ci ay sujet yu bari gis nañ ni ñu ciy duggee gis nañ contribution yi mi def donc bu bindé lu melni manam maanaam du nu bet du nu bett te xalaat nañ ci aw xaar nañ ci lu bari bari bari ci lim bind ñu ci xaar lu bari benen élément bo xam dama ko gis légui parce que dama xaw am bettel dama gis titre bi. je pense que ah. les évadés du paradis. waaw comment on peut s'évader du paradis. c'est extrêmement philosophique. je voudrais que mu amaat beneen jotaay boo xam pour voir dans quelle perspective on peut s'évader du paradis. qui voudrait même s'évader du paradis une fois qu'on y est. bind loo xam réalité de bi. boo ci amul dara sax da ngay pour nous euh, feeñ ñépp xam ko. muy may ñi nga xam ne ñu def effort pour bind ñu def effort pour bind. comme tey lii dañ doon bàyyi pour nit ñi am téere bi ba pare liir ko bu ñu ko liiree ba pare nag ñu organiser waat beneen programme boo xam ne kenn ku nekk di nga ñu joxaat sa xalaat pour ñu mën a gën a mën a euh, xool na la ñuy defaroo ñun. nañu gëm ne nag ñun ñii jàngi woon ñëw war noo mën a war nañoo mën a def lu tool nii wala lu ko ëpp ba tax ñi mën ñu yëg ci euh, askan wi ne. ci la ñu bokk ci jëf pour pourquoi pas ñun ñu gëm rek toujours da ngay wax ne euh, luga arabia la nangam ak nga mais luga arabia c'est lugaat yaakaar naa ne luga arabia waruñu mën a tënk ba tax na tey bu ñu amee lu toll nii te mu réyee nii duñu ko génne. téere bi mu ngi wax si gàttal ci benn mbir moo xamante ni Sénégal dundoon na ko ci commencement 2000 yi ba léegi sax mu ngi koy dund lu lu demee li lu mel ni loo xamante ni ay xale yu jugee ñoo xam ne dañu fiy jugee di dem génn Sénégal di liggéeyee ci biti bu ñu fi génn dañu fi génn anam boo xamante ni dafay leer naa ñu wee mais bu ñu demee la ñu fekk foofu euh, dafay wuute ak li nga xamante ne lañ fi bàyyi woon parce que yoon bi ñu jaar wala ñi nga xamante ne lañ taseeg dañ leen trompé loolu moom mooy xisax maanaam da ciy wax donc amaana yeneen nettali yoo xamante ni ci wàllu politique la yoo xamante ni ci wàllu culture la loolu tamit ci la. surtout ñu def ko ci arab parce que liñ seetlu ci Sénégal mooy taalif ci côté riwaaya daf fee néew bu fekkee ne am na fi bëru gisuma ko man yeneen côté yëpp moom gis nañ ko comme ni ma junj léegi ci biir salle bi surtout mu jël benn thème boo xam ne. thème d'actualité la ajra xayri saaliya mooy euh, nga xam ne dafa dafa tasaaroo ci jeunesse bi ci góor ñi ak jigéen ñëpp li ko wala ay problème économique problème social problème Afrique yëpp ñu ngi daw jëm foo xam ne dañuy bu ñuy dem dañu foog ne lañ jëm waaye bu ñëwee ba ak dañuy fekk ne nekkete ndaxoo euh, ndaxoo mbaay te lii tey askanu Sénégal da ko soxla kon may laaj maison d'édition bi ban taxawaay la war a mën taxaw tey ci lu gaaw nag bañ ko def affaire sénégalais naka la koy askan wi di jote parce que li fi nekk ci wàllu askan wi doyuñu doyuñu ci wàllu riwaayaat wàllu masraxiya wàllu yeneen yi nga xamante ni ñi ngi koy jox askan wi doyuñu benn teguñu ko ci xalaat comme lii teguñu ko ci xam-xam teguñu ko ci suñu aada teguñu ko suñu culture kon bu ñu amee riwaayaat yu toll nii maison bu toll nii génne ko war nañ mën am beneen idée pour mën ko génne lu dul tënku ko ci feuille yii ku jàngul arab bokkoo ci yéen a ko wax kon war nañ ko mën a génne ci beneen xibaraat yoo xamante ne dana nekk xibaraat mu àddala mubashara comme ni ko Edgar Del di waxee con of experience nan lañu ñu may génne lu mel nii tey ba nit ñi mën cee jariñu sawaun mu nekk masraxiyaat wala mu nekk théâtre wala mu nekk leneen film ba nga xamante ni dinañ ñëw mën ko génne askan wi mën ci jariñu. jeune moo produire. ouvrage intellectuel ñu seetlu na Sénégal aussi bari na ñu ñuy woowee intellectuel yu bari yo xam ne produirul dara donc da fay nek un exemple vivant bo xam da fay encourager la production intellectuelle chez les jeunes donc lu dal xel la. war nañ fexé pour préparer le film bo xam même ñi ça, sax parce que nekul domaine édition rek lañuy taxawé. waaw ñu ngi si ñu ngi si production film aussi waaw te ñun ñëpp langue arabe lañ jang mais tamit man dama si dama si wax toujours même ñi sama collègue yi nga xam dañu toujours damay am fierté bi. nga jang lang bi mu nek lang arab parce que lang la rek mom agronomie ba pare di bind mais loolu la ko yalla may mais comme comme may gogou non war nañ ko won peuple sénégal bañ xam ko waaw parce que loolu moñu war warna ci ñun bu ñu waxe ñun ñun ñepp la borom xalima yi ñu taxaw di bind te xam ne culture ak savoir amul frontière yaakaar na ki jàng médecine ci chinois ak français ak arabe ñoom ñëpp bu fekkente ne njàng moom moo ko ne war nañu mën a mën a faj. waaw mu dafa nekk lu am solo mooy mooy ne xudra yi nga xam yàlla may nañu ko moo xam lang am na ku bi mu ngi ci biir nit gis taalix bu am solo bu ñu damay am ay ay yoo xam ne dama leen gis man leen xool leen gis nga kii nu mbind ci wàllu xam-xam tey bu ñu ko defoon ci ah, tubaab ñu ci jariñu dinañ bëri bu baax a baax kon donc le fait que moom mu ñëw di intaaj ci arabia lu am solo loo xam ne la tey dañ ko war a encouragé ñeneen ñi nga xam ne am na idée ñu koy def ba pare ñu koy naqal tamit a bi rek waroo ci mën a mën a mën a bind daal euh, ci côté langue bi parce que ku nekk xam na ne roman dafa am ay ay critères yoo xamee ne euh, moom lañ ci war a bu buñ koy bind donc critères yooyu def ci bokk lakk bi euh, mu war a nekk làkk boo xamee ne dafay dépendre ci lu ñuy wax sard euh, bo boo boo xamee ne donc baat yi dafay da fay euh, tegaloo di demando ci anam bo xamé ne aussi du dag parce que bëggu ñu maanaa yi ak séquence yi nga xamé né mom la kiy bind di nettali donc di di euh, am ben séparation bo xamé ne aussi da ci am kon ci côté titre bi ak ci côté tam aussi langue bi wax dëgg yàlla ñaar yooyu ñoma gëna gën a euh, ñoo ma wax dëgg impressionné ci ci ci roman bi. loolu mom ñëpp la mom la ñëpp seetlu. waaye ñaareel boo seetloo ñi def wax tax saati elmi saan fekk dañuy dañuy ay ci arab man gis naa ci ay soxora gis naa ci ay soxora gis naa ci ay exemple yoo xam ne euh, bëri na ci alamul arabi gis naa ko fii gis naa ko xaj na luga dafa xaw jege ak côté elmi luga dafa xaw a jege ak côté elmi te xam nga yu ni mel dafa soxla fikr elmi dafa soxla fikr elmi dafa soxla jaani bu technique bi te ko ki def ci matière scientifique moo koy gën a man moo koy gën a maîtriser surtout ñun ni ñuy jàngee arab ci Sénégal xam ne jàng nañ boo xam ne organiser wuñ ko boo defut elmi rek pour nga def yu ni mel day day jafe parce que dafa am ay technique yoo xam ne dafa laaj côté elmi boo xam ne moo koy gëm loolu xaj na looloo tax aussi mawhiba xam nga moog charu ñoo tolloo maanaam nit mën naa jàngam sori mais du mën a bind riwaaya Euh, nit mën naa jàngam sori mais du man a bind euh, chaara mais mawhiba aussi def ci joué rôle ànd ak bi ay bi bi bi Égypte nga xam ne riwaay dafa euh, kii totoor lool sori fa xam ne yooyu yëpp moo moo ko moo moo ko dimbali mu mën a def yi gis nañ ne Aboubacar Ndiaye moom bokk na si ñi nga xamante ne ñu ngi dox ci jéego yoo xamante ne day saxal di caractériser lo xamantene ne bi bëggoon nako manam mom moom ñëw na bind riwaya bu ñëk mu tuddé ko jarima walakin riwaya bu mu nekkon riwaya bu am solo ndax té ñu bëri jot nañ ci ñu bëri lire nañ ko ci mo xam ci bir réew la mo xam ci bitim réew la mu nekk lo am solo mo xam mu nekk lo xamantene tamit naaj bi da koy rafet lu baax parce que bu ñëkkon dañ doon gis gaay di bind ci shaar bind ñu ci nasr mais le fait que mom mu ñëw bind ci shaar bi bind ci nasr bind riwaya mu doon lu rafet loo xamante ne ma sha allah lolu dañ ci koy rafetlu bu baax ci kontaan di ko ci ndokkeel di ko ñaanal yàlla na ko yàlla barkeel waxuñu loolu ba pare mu ñëw bindaat beneen riwaaya tuddee ko alhaaribaatu min aljanna alhaaribaatu min aljanna onwaan bi rek boo ko gisee onwaan musir jiddan maanaam euh, nit ku nekk bu ko déggee dafay bëgg def le tout pour am livre bi pour découvrir lu nekk ci livre bi euh, loolu dafay wone ne euh, waa ji ku taxaw la ci wàllu riwaaya ku xam riwaaya la ku xam aussi nu muy xëccee nit ñi pour ñu lire ay ay liggéeyam te miinuñu woon ñi jàng arab di ko fëgg yaakaar naa ne loolu am importance la te mën na inspirer nit pour ñu seet ni ñuy duggee ci yenn secteurs yi nga xam ne mbind ma bari na fa te dégguñ ci seen kàddu ba léegi loolu am na importance euh, ndax li ñu miinoon di bind ci xalima yu ni mel mooy euh, xëy na al masailul fiqhiya fuila bihi kada famal xukmu ak yu mel noonu biñu ñu demee ba ci di di mbiru thèse yi itam thèse yi ñu def ci université yi utroxaat yi liñ ci xawoon di seetlu mooy ne tàmbali woon na tuuti di dugg ci yenn secteur yi léeg-léeg nga gis ku bind ci ak tarbiya fi Sénégal ci min hadal qabil wala sahafa wala yu ni mel waaye dugg ci tomb yu mel nii al qisas al riwaiya nga bind ci livre mbindin moo xam ne mbindinu sénégalais la làkk wa nekk arab loolu yaakaar naa guléet la te buntu la bu ubbé ko bo xamné war na tax war na ñu bare bare bare dugg ci ñu gis ci riwaya bi awalan oustaz babakar jërëjëf ñu lay sant di la tasjiya ndax الندرة عقبة لا يقتحمها إلا النوادر التأليف في السنغال بحد ذاته هي ندرة لا نوادر رك نوكاي دف تاليف بصفه عامه انتاج فكري بصفه عامه تي ادنا بي دا فاي ديلو غناو باسكو نوفيل تكنولوجي نين كوي ديلو غناو حضارات ييب تشكو من ندره الانتاج الفكري والثقافي حضارات ييب سوي نيوي سنغال ال ال ال ال البيئه الافريقيه بيغا خامني تعتمد كل دراساتها وتحليلاتها وتداولها الثقافية تعتمد على الرواية السفهية موي بي ابي ني نك خام لي ني تودي تراديشن اورال لا ني جانغي ني تي جامباتي موي تالف مم خيواتول السنغال بني ني تالف موي ني بن بن ييغا خام ني من نانيو لينا اي اكسترا اوردينير تي فرنسي اك تي عربي boo demee université fac lettre loolu lañuy jàmbat ñoom ñépp loolu la ñuy wax ñun nag ñu amati ci suñu njàmbatum bopp mooy benn nat yi taalif ci ñun ci genn fànn rek la ñuy taalif mooy ci diine loolu tam problème bu mag la parce que diine kenn du ko jànge ci anam gi ñu koy jànge rek bu fekkee danga ko koo bëgg a jàngal benn peuple soo koy jàngalee peuple di nga jël wasaa'il wasaa'ilu tawaasulaat yi ñuy am yépp jëfandikoo ko pour nit ñëpp man ci jot parce que nit ñëpp ku nekk tabaqa bu nekk ak nu muy jëlee xam-xam fannu riwaaya nag gën a amati problème ci biir fànn yooyu parce que fànn la goo xam ni sunu mag ñi dañuy wax sax ni boo ca baree wax sax ñu ne la yow léegi li ngay wax wóoru da ngay wax rek kasaawa kasaa ngay wax te fannu riwaaya mooy fànnu jàngale gi gën a kawe ci fànni njàngale yi. Euh, mbokk yi lii mooy li nga xamante ne moom leen doon dégtal fii àndoon si ak euh, Reflect Production tey mu nekkoon cérémonie de dédicace si livre bu bi nga xamante ne ab roman la bu suñu mbokk génnee ñu koy wax Aboubacar Ibrahim Ndiaye comme ni ngeen koy gisee nii euh, muy les les évadés du paradis mu nekkoon itam benn mbir mu am solo boo xamante ne ay sénégalais yu bari ay ay kàngam yoo xamante ne seen xam-xam dafa màcc si wàllu adab muy li nga xamante ne moom la ñuy wax littérature arabe waaye itam wàllu roman maanaam fànn boo xamante ne dafa laal littérature arabe tey ñëpp teewoon nañ si bés bi ngir gunge si ki nga xamante ne moom moo di seen rakk Aboubacar Ibrahima Ndiaye euh, naka noonu gis ngeen li nga xamante moom moo si toftalu si ay impression yoo xamante ñi nga xamante moom mooy gunge bi ngeen gunge seen rakk Aboubacar Ibrahima Ndiaye ànd si ñi nga xamante xamante ne itam ñoom ñooy Reflect Production di équipe technique boo xamante ne ñu xarañ leen ci seen wàllu liggéey muy Reflect Production Reflect édition waaye itam ak Reflect euh, studio euh, ñuy nekk itam ay ay ay ndaw ñoo xamante ne dañuy yëngu ci wàllu production kon ci kaw loolu ñu ngi leen di oore képp koo xamante ne rek maanaam mbir mi yéem na la bul am benn yoon sikki sàkk ci ñëw seet ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy Reflect édition kon mbokk ñu ngi leen di gërëm d leen sant di leen jaajëfal te leen jox dig daje ba beneen yoon incha